ŋàññ waaye joxe war na dépasser xastante donc buñ demee opposition mën nañ mën na ñàkk ay layween waaye yaakaar naa mën nañ ko def ci débat di de mais pas ay xastante wala di tudd ay ay bu jàmbur mm-hmm. waaw mais xam nga ñun euh, ami am na yu bëri yoo xamante ne dañuy bëgg benn mbir ak contraire am on ne peut une chose et son contraire su fekkente ne dafa am si ñun ñoo xam ne dañuy taxaw ñu ne dañ fi war a génne attey article quatre-vingt yenn yi nga xamante ne maanaam soo jàllee baat njiitu réew mi ñu tëj ak yooyu suñu démocratie daf ko war romb su fekkee suñu démocratie daf ko war a romb te nit ñi nga xamante ne ñoo jëmmal démocratie boobu rombuñ ko problème dafay am mhm. mi ngi mel nii nga ne dañoo war a tere ku jàpp sàcc ba pare pénc ma bàyyiwuñu sàcc dañuy sàcc fu ngeen jëm. <laughs> waaw pour man am na yoo xamante ne buñ fa war a yegg naturellement lay yegg si mais boo tëbalee garde fou yooyu noonu nga dem ba di nga toll benn moment nga bëgg indiwaat doo ko mën a indiwaat. Mhm. moo tax ma dama bokk si ne am na comportement ak doxalin yoo xamante ne dafay laaj benn rigueur bi dafay laaj benn autorité bi. Mhm. toujours ma wax ko ma répété ko répété waat ko Sénégal ki koy defar il faut nga am benn mbaxade dictateur. Mhm. Mm-hmm. le mot n'est pas trop dit ah. mbaxana dictateur yenn saa yi da nga koy sol. Mm-hmm. comme li sëñ bi wax. defante ak ñoom ba mu saf sàpp nga daal di delluwaat ne ne nekkaa tax ñoom. parce que xam nga lan moo waral loolu. am na loo xamante ne moom mooy base développement mooy lan mooy discipline. te fi yàlla dafa def discipline boobu daf fi raflet. disipline mooy tax tey jii nit ki boo nee bu bu ngeen joxante rendez-vous mu ñëw waxtu. discipline mooy tax tey jii bu embouteillage amee kenn du jéggi di wéeri di créer beneen ligne ci à côté. wala di dugg ci place BRT bi. di dugg ci place BRT <laughs> gis nga yëpp discipline mooy tax tey jii sa kër doo jël gravats yi. ni ko bëcc si mbedd mbedd yoon bi toj say mbir daal di koy sànni mu dafa 6 mois wala 9 mois. nga gêné sa dëkkandoo nga gêné sa dëkkandoo sa yoon du si nekk. comportement yooyu yëpp nag pour am na yoo xam ne pour ñu régler ko ñaari ko mën a def. Mhm. soit autorité. wala poos bi. Mhm. di def ay amende. Mhm. ñu dagg seen xaalis ñu xam ne li ci poos bi lay jóge mhm. wala nga am autorité di yóbbu ci yoon di indi ñu xam ne kii kat waaye soo ko defoon tey ju ne ñu ngi ñu jëmale ci benn état policier boo xamante ne euh, mbirum léegi euh, jaay doole la mbirum nangam ak nangam ak nangam la or am na ñoo xam ne loolu la ñu xam. parce que tey jii Sénégal am na fi ñoo xamante ne fii wax dëgg yàlla ak loo leen mën a critiquer critiquer loolu mën a wax je exemple des socialistes. Abdoulaye Wade bi mu fi ñëwee. est-ce que déggoon ngeen fi benn socialiste boo xamante daan na ngeen di wax lu ñaaw jëmale ko ci Abdoulaye Wade. Mm-hmm. wala kuñ fi toppee ñu ni mel yooyu. Mm-hmm. du ne amul waaye bu amee c'est très te ba léegi xoolal ñi fi yàlla bàyyi. Mm-hmm. Abdoulaye Wilane Ousmane Tanor ak Serigne Mbaye Thiam ak ñeneen ak ba ci Khalifa Sall ak ñeneen ak ñeneen tey ji nga dégg leen rek benn kàddu ñaaw ñu yëkkati ko wala ñu am jeunes yoo xamante ne ba tey seen seen jeunesse. mais ñoom na ñoom amatuñ école du parti ñi ay activiste lañ leen di wax mm-hmm. lan lañ lay fay maanaam da ngay saaga miy dox yow da ngay saaga miy dox ngay sos miy dox ngay tontu miy dox mm-hmm. ngay tuumal miy dox <laughs> waaw mm-hmm. ñoom loolu lañ loolu lañ leen recruter woon yow da ngay togg huit heures nga taal sa live di sos miy boo sosee sos sos ba bi yëpp fees boo paree ñu ñu envoyé le boo toj nga fi nangam ak na nga ne bu subaa moo gën a garaaw su ma ñëwaatee dara du la ci fekk amuñu xam-xam duñ indi xam-xam du a xam-xam mooy ki nga indil débat yi de mu toog naa laan sa mbaxane bi daa weng sa col bi ni nga ko tegee baaxul. ni nga démarché démb baaxul ni nga démarché démb baaxul. <laughs> yow foo jógee sax yow nu nu tudd ku la jur <laughs> kooku amul xam-xam. mooy niveau personne yi ñu wax les médiocres. <laughs> bu dee excellent ñoom ñu idée la ñuy waxtaanee. ak ay principe ak yu ni mel mais médiocre yi ñoom nit ki mooy wax ak moom nga joxoñ leen dëgg xooluñu dëgg ñu ngi xool sa baaraam. dëgg la naa ne sa baaraam bi nga joxoñu dëgg bi de. Mhm. foofu foofu lañ toll moo tax ma jàpp ne tey ji tollu nañ foo xamante ne il faut que ñuy jiite ñu jël seen ay responsabilité mhm. booy doog a ñëw ci nguur duñ la nangul dafay am loolu mooy déni de l'autorité maa ngi ko doon expliqué booy doog a ñëw amee comme euh, amee mi buñ yàggee nii ñu miinante nii. Mm-hmm. ma xëy rek tey ji par exemple ñu toog teg ma benn poste de responsabilité bu ñeneen ñëpp di ma ñëw di ma nuyoo ñaari loxo moom bu ma benn loxo la may nuyoo. Mm-hmm. mbaa du ma la nuyu sax. wala du ma nuyoo <laughs> waaw parce que ñeneen ni ñuy gisee autorité bi ak ni ñu koy jàngee sama kanam moom moom moom du ko gisee noonu. Mm-hmm. xam nga kañ la kañ la may nuyoo ñaari loxo. bis bu ma joxee benn loxo rek. ma am nu ma ma am nu ma def ak moom. waaw wala ma sama benn eh, dag jaare si ginnaaw am nu mu def ak moom dina ne eh kon kii kat du Moustapha bi ma xamoon foofu ngay toll ak ñoom Macky Sall dundoon na ko bi muy doog ñëw ak gars yi ku jóg saaga mhm. ku jóg dagg ku jóg def ak ñoom ñenn ñi mais moom façon bi ko doon defee mu nit ñi rafetluwul mhm. maanaam dara naan da ngay ñëw boo ñëwul mu duma la. mu duma la wala mu duma la pare dugal la ci biir. xiir gi daal xiir gi daal sa kaw waaw wala mu caw la pare indi la ci biir. Mm-hmm. moom noonu la doon doxalee ak ñafal ñafal. waaw <laughs> moom noonu la doon doxalee ak ñoom eh, doxalin la boo xamante ne kenn d'accord ci kenn bëgg ko maintenant nag jomaa état boobu la toll. Mm-hmm. il faut mu génne autorité bi. wan na man maay la président de la République du pays ak Ousmane Sonko bu ko jëflante ak ñoom nag ba noppi ba taxaw. Mm-hmm. ñoom dinañ xam ne fi ñu toll nii kii mooy kilifa ban responsable nga gis tey si ñoom ku génn ñemee génn def conférence de presse wax ak ñoom dëgg la bu ñu doon booy doon lu ñuy wax ñaan njekk la ñuy mën mhm. ñaan njekk dong la ñuy mën ci njekk rek mhm. ci njekk dong ci njekk dong avocat yi doo eh, est-ce que gis ngeen tey ñu def conférence de presse taxaw wax ne noonu li mu waxoon maa si jaar na si kenn taxaw jaaraat si mhm. xam nañ ne seen nit moo tooñ waaw waaw léegi ndax dañuy wëy di leen bàyyi ñuy tooñ moom mi tooñ waaw ñi mu àndal jéggaluñ léegi da nga leen di wëy bàyyi leen ñuy wëy di man daal dama yaakaar ni sëñ Modou. <laughs> réew buñ ko bëggee defar il faut ñu. waxante dëgg mooy li ma la wax rek yar. il faut ñu waxante dëgg. islaam yar yar dafa am ci islaam boo wàccee lii daan yi moo la ci teg. boo weddee lii lii moo la ci tegee boo weddee lii mm-hmm. lii moo la ci tegee ñun dañoo am sens Moustapha. Mm-hmm. Moustapha. Mm-hmm. yàlla bi mu ñu naree dimbali xoolee élection yi ni mu demee. élection yi kenn faatuwu ci. élection yi sedd na guy yàlla ñëw na ñu fal suñu président. fal bu sedd guy loolu ndimbalul yàlla ñu war a encadré ko ànd ak moom gunge ko bu au moins sax mu am six mois wala un mm-hmm. Mm-hmm. waaye benn six mois nga bëgg ko fakastal yow yàlla dimbale la ki nga fal maanaam yaru na am na xam mu diine bëgg na islaam. Mm-hmm. dégg nga yor ñaari soxnaam di jullit pire. kooku sëñ bi président boobu moom la ñëpp adduna bi moom la ngéej di rêve am. waaw koo xam ne yaru na. am na diine de bokk la ñu fi salaatu salaatu faatiha salaatu xalaa maanaam mën naa jàngub kaamil <laughs> yor na ñaari soxnaam moo mhm. téye naaw làmmeñam yaru na wax sëñ sëñ bi président boo ko kooku kooku boo ko jàppalu taxawu ko xoola fan yi fi mu ne ñoom bu fi yemoon sax mu neex mhm. euh. man nga xam ne man bay doo nga lay dundee mhm. xool fi ne engrais bi. voilà dinañ ci dinañ ci dinañ ci dinañ ci ñëw saako engrais ba pare phosphate bi nee na da koy maye. la ministère bi wax xoola loolu amu foon géej gi géej gi fi mu ne nii xoola waaw loolu bokk na ci li ñu war a waxtaanee boobu xoola jën ji dinañ ci ñëw si kanam tuuti loolu neex na dinañ si ñëw waaye lii rek doyoon na bu <laughs> fi yemoon sax mu neex ana ñu sant Seck eh, jaw <laughs> voilà ñoo gis ci beneen wet ga itam gis nañ ne Maimouna Bousso bi nga xamante ne mën nañ ne Pastef la daal di ay kàddu di ne képp koo xamante ne daal defati na lu mel ko daal di fekk këram ba fekkante ne de liggéeyam est-ce que yaakaaroo ne loolu aussi ku nekk bu naree fajal boppam dëkk bi du dëkk bi du xëy na yaramam moo moo tàng xam nga léeg-léeg tàngooru yaram dalay jàpp waaye nag lu dem du tàngooru yaram xam nga mën ngaa fakkastalu mm-hmm. xam nga sax suñ borom nee na boo defee bàkkaar danaan malaaka mi bu bu bind xaaral xaaral tuuti mm-hmm. ba mu jéggalu bu jéggalu nga baal ko yaa ngi dégg mm-hmm. xëy na waaye nag bu buy buy boo koy répété di ko répété dañoo xam ne kii dafa xamadi dafa yaradi ko mm-hmm. xam nga kii ñi yàgg nañoo saaga ñi jàpp ne eh, bu dee yaa ngi si réseaux sociaux yàgg nañoo saaga de lu bon yàgg nañ ko indil seen waxi démb maanaam dañoo dem ba boole ci ak réew xamadi arrogant mm-hmm. ba pare di wax loo xam ne duñ ko wax seen bàyyi mbaa seen yaay mm-hmm. may mun a bu sa xëy na yee yarama moo tàng gis na ne saaga yi ëpp na mm-hmm. trop c'est trop léegi nag léegi nag comme comme yoon jot na léegi nañ nañ xool ñuy wax ñi nga xam ne dañoo yor seen seen YouTube dafa dajale ay saaga saagakat ay chroniqueurs yoo xam ne dañ leen di fay jël leen ci seen i télé ñuy saaga di offense chef de l'état mbaa Sonko ñoom ñëpp nañ leen nañ leen recherche fexe leen ak téye teg leen ci yoon comme ni ñu ko defee ñaar ñii ndax leen day tax ñu yëpp président bi wut sa président sa institution taxaw sëñ bi ñu da ko saaga te nga fal ko kooku loolu mu Moustapha loolu moo neexul ñun xoola ba ñu ko opposé woo nit te réew mi ñoom bu ñu jàppee ne maanaam ay saaga moo ko jox Sonko dañoo nax seen bopp de. ñoom ñëpp dañ ne Sonko dafa doon saaga di xeex ba jot ci réew mi sonk du loolu de Sonko daa ñëw indi discours am am na ñu naan sax dañu leen di fay bor bi de. ñu ñoom ay buqal la ñu dañuy sóob xam nga Sonko daa ñëw nekk amuñu fit oh, xamul lu tax ku seetul doo mën a opposé wu. waaw mm-hmm. ah, li ma rapport yaa ngi fi yi jàpp nga ne heure bu ne mën nañoo génne rapport ay buqal la xoola sonk moo taxaw ne 15 ans ku ma xamal dërëm ñëw waxal daal di taxaw opposé wu luñ ko gisal dërëmu kum lekk. ñi ñii nag dañoo seetul bay mën a opposé wu da booyee la ñuy yebal ñuy saaga yor seen nekk ay janax di leen jox xaalis ñuy saaga. Mm-hmm. di yàq rek di yàq léegi nag loolu di leen di leen bàyyi di leen bàyyi ci loolu ëpp naa bàyyi nañ xool alal réew mi jël di ci fay ay journaliste ak ay ndaw ñu dem nangu ko teg leen kuréel si leen teg leen coon bañ ko defee auditu ah, Macky Sall yi. Mm-hmm. dem jàpp Karim Wade ñeneen ñëw transhumé nga ñëw jël leen ñu àndaat ak di jëlaat alal réew mi loolu loolu du fi am loolu dama ci interpellé. Ousmane Sonko ak Diomaye yëpp képp ko lekk àll réew mbaa suuf si tool yi jàmbur yi nangu ci àll bi nga xam ne man mi ay baykat la ay hectare lépp nañ ko nangu. delloo yi ñu jox naar yeeg tubaab bi lépp nañ ko nangu delloo ko askan wi. Mm-hmm. yi suuf yi ñu jëloon yëpp te duñ bay nañ ko nangu lenn ci sëriñ ma ma xam leen ñoom it ci liñ bokk sama classe gi. dem ci àll bi ñu daggal leen ay maire yu fi nekkoon nga xam ne régime bi dafa newoon sëriñ soo àndoon ak régime bi ñu daggal leen ci commune yi ci àll bi te bayuñu nañ dem nanguju ko dëgg gis nga Moustapha dëgg du weesu dëgg nañu wax. a nga ni suuf suuf dina yomb ci Diomaye Faye bu dee ay sëriñ bokk na ceeg li ni mel. bañ a mu réglé ko dina dina dina nga am réew moom lu waa boo ko bëggee teg amul sëriñ ak ca kaw ngay commencé teg ñëpp ci yoon. muy man ak ñëpp ci yam mënoo fekk suufu baykat nga jël ko ñu daggal la fa daara yow bayoo fa baykat bi ñëw ñu jaay ko doo def ko ci këyit maa moom doon fa bay benn benn sëriñ jóge fee mel ni man man sama toole maa mais maa ngi koy bay boo demee ci Koungheul gële samay tool yi maa ngi maa ngi la jàpp cil maxtaar ak jàpp ba faas faas ak fu ne maa ngi fa di bay mhm. waaye boo demee ñëw di xaritu meer ba jógee jógee Kajoor mbaa dem Bawol dem gis meer ba ab sëriñ nga rek ñu daggal daggalu suuf sa defalu ko ci kii doo fa bay doo fa sàmm loolu suuf soosu nañ ko nangu delloo ko baykat yi mhm. loolu ci laa leen di woo Uh-huh. Ibrahima Faye euh, depuis Italie Moustapha nee na mu lay bigg bu baax a baax. Mm-hmm. faatu Fa Mbodj itam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax dégg nga kàddu yi nga xamante ne moo Modou suñu invité yëkkati na ko ndax. mën mm-hmm. a Bousso gis na ni daal jot na ñu daal di fayul seen bopp.